Oh, bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. ñu xaar ah gis nga. père jam téer am na doole de. ah loolu kay mooy géej am na ndox jam téer am na doole waaw euh, ñu ngi nuyu Ablaye Jaxate jam adjudant nee na vingt heures lay tas vingt heures des na père 39 moo jot 19 heures 39 am nañu 20 minutes jàmm maa ngi lay nuyu bu baax a baax télé siyaare. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu waa salle bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg sama loxo sama ñaari papa yi maa ngi leen di bu baax a baax di nuyu promoteur bi di nuyu sunu grand Abdou Diouf di nuyu ñi nekk ñëpp. nuyu nag ñu bàndal di nuyu tur jënd yëpp nag yëpp yëpp yëpp. ku ma jaay maa ngi lay nuyu bu baax a baax Lamine gis nga gis nga gis nga gis nga ndaw sori taxaw na le kële muy ku ma jaay ma le bi may toll nii di nekk kër ma faram moom la defal lépp kële na le tey su ma nekkee maanaam maanaam su ma dugg ci laam man doonu ma champion taalibe laa damay jàng ba tey da cee joué lu bari yàlla xam na ndax dama daan jóg entraînement su ma demee entraînement ba ñëw mu leen jox ma lekk maa ngi moon rek kër ma problème maa ngi ñii ñoom ne ko di nekk ay tout temps kee sama rakk la ñëw ak papa ndax moo pare moo ma jur ndax damaa damaa judd fekkoo ko ma sama papa kon kooku moo ma jur moo tax bi ma demee jàng bëre sama papa ni ma dama jox kenn sa bàyyi ma fam laa la yóbbu fa laa demee li ma mën ci bëre fa laa ko jëlee muy école moo fa ay ndaara nekk fa seex mi sama tànk topp bi ma léegi boppam lu ndaw boobu la ndaw la ay Pamba yi kon moom champion kenn du ko naataable parce que dafa dafa jaar ci ay ay tànk yaakaar naa ku fekkee saa Kajoor rek ku ko fekkee ku fekkee carrière rek maanaam sa dara kenn du ko lam-lame kooku man dama naan moo dàq bëri ci àdduna mais nag yàlla mooy cëral xëy na yàlla yàlla moo def li gën mais bu ñuy wax ku mën a bëri rek man kooku laa nangu ak bëri man saa Kajoor barke yonent yàlla Muhammad li ma mën ci bëri nag ba tax ñu ba tax ñu ñu koy dugg écoute moo problème yàgg naa yàgg naa ko wax Lamine bi tey kon tey maa ngi leen ziar baax di leen jàmm ak sama rakk yi ndam yi ma yéeme yi ma yéene ñu def ndam yëpp ñu yóbbandoo donc incha allah noo lay noo lay fii kenn mënul kenn yàlla rek moo fi nekk coow li mën naa bëri nag rumeur bi bëri nangam nangam mais biir asante bee nee lu fa waaye jubul doo ko faam biir asante bee nee lu fa waaye jubul lu ne doo ko faam benn paa du ñëw di teel di teel ab tànk di la ko xëccal yaa koy xëccal sa bopp. billaahi wallaahi maa ngi sama 22 victoire Abdou Diouf dugal naa jëndee 22 victoire 3 défaites benn sans verdict ndam mu ne dugal naa ko fee. couleur couleur jëndeer dama ko boot mais dafa diis ci man xam nga dafa diis ci man tey maa ngi nii tey ndam mu ne dugal naa ko fa tey su ma ñëw Issa damay luyee oto kër amagu ma ko Kayar gi ma dëkk barki alxuraan. ndax lu ma am dama ko sacrifice bopp ngir ndam ndam moo ma jaral loolu te ndam la dugal naa ko bari na champion yu tudd fi ñoom seen oto am seen kër li may islam defuñu xaaj bi li may ñu bëgg a seetal ñu bëgg a seetal kon na maanaam man jëndee ci ma suturoo ñu delloo ma bor bi parce que maa ngi rayante ngir jadeer parce que suñu maam yi la fa bàyyi woon ku lébu laa téye te dafa di si man am naa ay rakk yu fa nekk di rayante ñëpp si man la ñu ku sam commencé man nga jëm kon man li ma boot xam naa ko te li ma téye xam naa ko du ma def erreur ci làmb parce que dama am ay rakk yoo xamante nii amul droit def erreur kon nag yéen bu ngeen nekkee bu ngeen nekkee tund wi doon ay autorité ñu gis social yi ngeen di ngir yàlla yan bi ñu bi ñu yanu taw la ko taw gi mooy ngeen jàppale ñu kese loolu la bëgg bëgguñu leneen waaw pour lan loolu xam nga la suuf si day yàggatul ndax loolu dox ay weer ba mu des ay fan ba naan bi sell la loolu yàggatul moom wax na ci média yi taralali na ba sonn wax na ba sonn wax na ba ñee xam saf yaa ngi nii yàggatul arbitre doo ko tëj Sénégal yi seen seen bët Lamine Lamine boo tiitee nga wax man waxal ak man waaw waxal man dama la man signature ma de man nekk police signature man li may wax li ma gëm laa lay wax bu la neexee yow journaliste nga topp samay combat ah waaw dama dama ni bu la ñaan nga topp mooy combat jamteer ni muy siyaase noonu lay ci géew parce que li ma jàng la man waaw ñu ngi léegi ñu ngi woo ñu ngi woo waajaleel yëpp ma woo sama sama supporter yi nekk ci diaspora bi suñ mbay jàpp na ci combat bu baax a baax a baax Ibrahima Boxaaba Moussa Sall Mbisaan ñu ngi jàpp ci combat bu baax a baax ñu ci gën a jàpp nga di woo waaw kon ñu ziar ñëpp di jéglu baax a baax. père lan nga wax bi yóbbante la. yóbbante bi mooy li nga xamante ni moom la ma bës wax bës nee na digganteem ak jëmm ji xool bi mu ko xool ba tudde ko drapeau bi moom waaj na ay mbokkam waaj nañ nee na pare na jàppale ko à deux cent pour cent bës nee na lépp loo xamante ni. Ablaye Diakhaté soxla na ko ci làmb ji wala lu mu war a def wala lu muy xaar ci moom nee na ànd naa ci mbokkam nee na pare na pour defal ko Ablaye Diakhaté ab euh, bés nee na presse bii nga xam ne ñoom ñoo toog nee na buñ ko tuddee drapeau ñoom lañ ko tuddee nee na xale yu jigéen yii nga xam ne ñoo ne ci presse bi nee na ñoom ñëpp recensé na leen da leen di décorer ci bis boobu képp kuy jeune xale bu jigéen bu nekk ci réseaux sociaux yi rek jàppal ni ci décoration bi nga bokk bës na ne da leen di décorer jour boobu bës waxaat na ni jam téeri général Malika pare na pour dëggal leen enema ngeen génn dem bitim réew mu wutal leen kenn ku ci nekk dana la wutal adversaire de taille ñu fay la xaalis bu doy nga dem defi enema nee na loolu li lijjanti na ko ba pare nee na nag mi ngi gërëm Ablaye Jaxate li muy waaj bu defal ko Ablaye Jaxate nee na moom xam na ko ay mbokkam xam nañ ko te bis ba dina ko wone ñëpp nañu teg seen bët. waaw ñu ngi nuyu ñëpp leen ziar lu bëree bëree bëri di jaajëfal sécurité bi nga xam ne tamit ñoom ñoo fi nekk ñëw di ñu sécurité boobu ba léegi di leen sant bu baax di leen gërëm ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax li mu def tey ñëw fii si arène nationale Sagar Abdoulaye Diakhaté gis nañ liggéey ci taw ni ñuy liggéey ci suuf bi demee yëpp di koy jaajëfal di ko jox rendez-vous rek incha allah rabbi waaw waaw jaajëfal presse bi di leen sant bu baax di leen gërëm di jaajëfal une boisson Catalina ñoo ngi koy jaajëfal bu bare bare bare li ñu waxoon rek waxaat boo bañ àndee ba léegi yàq dara saa su ne suñu kanam bi suñu ginnaaw

ak ndey Saana jërëjëf Fatou Ndiaye bu fekkee ne dañu koy parce que ñoom tout le temps dañu mel ni interpellation bi baax. Kopa Ndiaye. bu la kalaamee jëm téere dafa ay kàr kanam. nee na naa ko bàyyi balaa mu ci passé. Thank you.